Sir asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy bàyyi xel ci seen télévision xasaay TV su ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax di am mbégte bu baax ci taamu gi ko xamee tey la gaawu euh, ñaar fukki fan ci weeru mai atum di bis bi nga xam ne nii ci la daar Hizbut Tarqiyyah daar Xuddus di jébbal liggéey bi Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke xalif général kulli murit ni ñu ko xamee nag mboolem selil yi nekk ci biir mi ak ci bitim réew tey teew nañu fii ci kanamu Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke ngir fas yéene def seen siyaar bu am solo bi nga xam ne nii moom la ñuy siyaar annuel ci loolu tax na nag incha allahu taala seen télévision Xasaay TV ni mu ko baaxoo ànd ak yéen danañu ànd ak yéen ci ay reportage incha allah ci kanam tuuti aussi am na ay interview yu am solo yoo xam ne danañ ko séq ak mbokki taalib yi nga xam ne ni ñoom ñoo jiite liggéey bi incha allah ñu ñëw moom mi ngi door mbooleem daar yi ne ci biir réew meeg bitim réew kuréel yi fi ñëw barkelu waaye nag incha allahu taala ci kanam tudd danañu ànd ak kuréel 1 muy kuréel gu mag gi nga xam ne ni sëñ moo ko jiite ngir ñoom itam ñoom ñoo fas yéene àggale nga xam ne ni moom moo des ci njàng bi incha allahu taala lépp loo xam ne ni en tout cas bàyyi koon fii ci kër Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke Mbàkke euh, dara du leen ci ump yéen ñi nga xam ne yéen bàyyi xel seen télévision Xasaay TV incha allahu taala ñu ngi taxaw ak euh, Serigne Mbacke Seck moom mooy jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah daara Xudus bi nekk fii ci Touba sëñ bi ginnaaw bu ma la nuyoo siyaar la ndokkeel la ci bis bu am solo bi nga xam ne ni tey ji moom amal euh, ñu bëggoon a xam rek euh, Hizbut Tarqiyyah daara Xudus bi nekk fii ci Touba naka ngeen doon waaje siyaar bi waaw bisimilah a baax ñu daara membre yëpp maanaam boole suñu doole ak suñu xel ak suñu xalaat di fexe maanaam lépp loo xam ne mooy tax ziar bi jag rek boobu ba léegi ci loolu la dox suñu doon defal nañu tawfeex nag ba gaa yëpp daje nañ ba lépp lu ci war ci loo xam ne ci dafa ci wàllu ci ziar bi lépp jàpp nañ la day leen tamit lépp yoo xam ne ci wàllu addee dafa ne dafa jox seen tamit suñu doon defal nañ tawfeex ba maanaam ba ñu ko bëgg woon amee nañ lu kawe suñu jott la wax ni maanaam li nga xam ne moom lañ waajale woon bis bi euh, waaj nañ ko ci wàccaay yi nga xam ne morom moo gën a sel waaj ko ni nga xam ne maanaam noonu lañ ko waajoon daaw ñu yokk paste bi gën koo waajaat ci ren gën a yokkaat laxasaay yi xam ne maanaam euh, maanaam li nga xam ne moom lañ fi sàkk si daaw ci ñaan gi nga xam ne maanaam moom lañ fi sëñ Sidi Moxtaar ñaanaloon ñu gis suñu kawe suñu njort moo tax ñu ren maanaam ñu jàjjuwaat laxasaayuwaat ñëw ngir jàkkaarloog sëñ Sidi Moxtaar tàllalaat ko suñuy loxo yeesloowaat yeesalaat suñu njëbbal doole santaat ci li nga xam ne maanaam moom la ñu moom la ñu moom la ñu ñaaraloon daaw ñu gis ko ren ñu doole di ko di ko santaat ginnaaw bi nu santee yàlla sant yi yonent bi sant Serigne Touba ñu dellu si di fas yéene euh, tàllalaat suñu loxo dékk ko sëñ Sidi Mokhtar euh, jéem a waat ngir ànd ak moom ci li nga xam ne maanaam moom mooy tool sëñ Tuubaa bi. mu mel ni ziyaara dafa bokk ci e, ponk yi nga xam ne ñoo gën a foor ci yoonu murit ndaxte bokk na ci e, li nga xamante ne bii nag mooy wane ni nit ki ab murit la mu am ab sëriñ waaye nag muy dem ca moom di ko nemmiku di ko liggéeyal waaye di ko jox addiya te sëriñ bi bu la dul gis du gis sa addiya du xam yoway kan tey la muy liggéey la mën nga cee bañ jot mu mel ni Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos at mu jot balaa ñu um koor danañ dajale mbooleem li nga xam ne moom la ñu liggéey ci at mi e, ci e, lépp daal di ñëw gisante ak sëñ Sidi Muxtaar wax ko li nga xam ne moom lañ jot a def ci at mi lépp daal yëkkati sunu at yi jox ko mu doon lu ama am solo ndax bokk na ci li nga xamante ne bi ne Serigne Touba digle na ko te Serigne Touba e, wax na ni gaa yu baax yi ko ànd ak ñoom ñett yi boo ci dëggoo ci benn rek mën ngaa taxe te loolu buñ ca demee danañ fekk xaddiya muy li wax ne tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati mu ne texe de ñeel na murid bi nga xam ne dafa dëggal ñeel sëriñ si ci lan ci xidma bi leen liggéeyal wala mu sopp leen te yàlla tax wala mu di leen jox haddiya haddiya moom dafa doon loo xamante ne bi na lu am solo la loo xamante ne bi ne day jariñ nit ki bu baax a baax a baax te bokk na tamit ci li nga xam day laabal xol di laabal alal waa daa bokk ci ponk yoonu murid kon kuy murid rek war na jox addiya fu waaye ziar bi de wax dëgg yàlla ni ñu ko waxee rek waa Daara Thiadiaye moom ba ñu fa jógee daaw bi jàll ci lañ commencé waajal ren bi. am nañ ci lu mucc ayib itam ñu ngi ciy sant mbooleem taawlu bi boo xam ne nii nekk nga fa mbooleem mbokk daara boo xam ne nekk nga itam sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wax dëgg fa ne yàlla am nañ ci lu taw feex lool loo xam ne ëpp na kawe suñ suñ jot lool ak ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii suba ba léegi ñu ngi ànd ak yéen fii ci euh, kër Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké gi nekk ci Touba euh, mboolem daar Hizbut Tarqiyyah daar Khoudoss nag moo xam ci biir réew mi la ak ci bitim réew ñëpp tey teew nañu fii ci kanamu sëriñ bi ngir fas yéene ko jébbal liggéey bu am solo bi nga xam ne nii moom lañ ko doon defal ci noonu tax na ñu ngi toog ak euh, sëriñ Dame Ndiouk moom mooy jëwriñu a Dakar sëriñ bi ginnaaw bu la nuyoo siyaar la nga xam ni tey am solo bi nga ñu ngi koy def bisimilah barke borom Tuubaa ah, sëñ bi ñu ngi sant bu baax a baax di la sant bu baax di sant mboolem ñi nga àndal lool ci liggéey bi di rafet lu baax taxawaay bi ngeen taxaw a ah, daa ziar bi nag li ñu ci mën a wax mooy li ci sant sëriñ bu baax a baax a baax a baax ci ndam li nga xamante ne defal nañu ko ci ndax ba nga xamante ni woote nañ ko lancé ko wax ni bëgg nañu buñ ñëwee ci weeru Shaabaan bi ci fan yu mujj ñi siyaare ji sëriñ bi am yéene joo xamante ni wax nañ fësal nañ ko ci bëgg ko cee def mboolem membre yëpp gis nañ ni bañ ko waxee ba léegi kenn ku ci yaa ngi doon fexe di góorgóorlu ba yitte ji daara ji am direction bi am ci daara ji ngir matale sas wi kenn ku ne fexe ba li la ci sas nga matale ko muy góor ñi di jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi mboolem ñi ne ci biir daara ji ci dakaar ba ci ñi nga xam ne sax ñoo ne ci bitim réew ak mboolem cellules yi nekk ci daara ji rek te aju ci daara ji def nañ ko muy suñu objectif ba yàlla sunu borom suturaal ñu ba lañ ca bëggoon yéene ko ci sunu borom defal na ko ci. waaw euh, Daara Dakar am na mobilisation bu am solo na ko jógee ba Dakar ñëw tey ci Touba fii euh, solo bi nga xam Daara ji mu ngi koy def euh, naka nga ngeen doon def tey ba def mobilisation bu am solo bi ci wàllu assemblée générale yi ngeen doon woote lépp ngir waajal siyaar bi. waaw dëgg la siyaar bi nag gannaaw loo xam ne nii ci calendrier Daara ji at mu a ñu koy amal ci weeru Chaban bi moo tax bañ ko lancé ñu di def weer wu ne ñu amal ci ñaari assemblée générale bu weer wi tàmbalee ak bu weer wi mat ñu def ci assemblée générale woo mbooloo mépp góor ñi ak jigéen ñi ak ñi ne ci kuréel yi ak ñu nekkul ci kuréel yi ñëpp ñu daje waxtaane objectif bi di xam fu ñu ci toll di xool yan jéego lañ ci war a dolliwaat ba liggéey bi ñu mun ko matale. loolu lépp nag mu doon loo xam ne nii ci supervision service administratif ñoo ko doon coordonné di lancer nit ñi ay message di leen woo téléphone di leen wax lépp lu jëm rek ci ñu mobiliser wu xam ne dafa doon loo xam ne nii dafa am solo. ndax euh, ziyaare sëñ Touba ku ne xam ne li ci nekk ci ay yool ak ak yiw te mu doon lii tam doon loo xam daara ji ba ñu jugee ba léegi saa bu ñu yegsee fii rek def nañ ko te yàgg cee gis ay ndam tàmbale woon ko ci sëñ Saliou ba fi ñu toll nii kon nag moo tax bañ ko lancé rek kenn ku ci ne yitteem ak pas-pasam ak léppam moo doon ñu fexe ba lañ ci bëgg ñu am ko kon ñi ñuy wax muy ñu yor administratif yi ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax ci taxaw bi nga xam ne taxawu nañ ko ci ci convocation ci message yi ci mboolum jumtukaay yoo xam ne nii rek ngir jot nit ñi ba wax ak ñoom def nañ ko ci ba lépp sotti waaw suñ daam laaj mujj bi rek xam naa moom mooy euh, am nañ bokk taalibe yoo xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci diaspora bi te bokk ci euh, daara ji am taxawaay bu am solo boo xam ne naka jekk daan nañ ko ci def te ji yan euh, soññ nga leen di soññ ak it yan kàddu nga leen di beral ñoom ah ñooñu kañ dañuy wax lu ñoom ñoo ñuy soññ ñoom seen jëf saa su ne dañ ci gis ñun suñu soññee ndax wax dëgg yàlla bi ñuy waxee objectif ziar bi ne lii mooy sas bi bëri na ñoo xam ne dañoo wax ne xanaa yéen dangeen ngeen a bëgg jëf-jëf ji bañ na cee boole ndax li ngeen ñu sas dafa tuuti kon xalaatuñoo yem ci li nga xam ne moom ngeen ñu féetale kon ñoom wax dëgg yàlla ñun suñu wàllu bopp sax ba ñu gisee réaction boobu ñu def ñun moo tax ñun ñekkat wax dëgg yàlla ñun war nañoo gën a góorgóorlu ndax ñoom ñu nekk ca ca fa sori sax bu ñuy siyaare du duñ ñëw bu ñuy joxe addiya ji duñ ko fekkee te ñu mën cee def jëf joo xamante ne ni ñun fekkewu ci kon war nañoo góorgóorluwaat ñun suñu wàllu bopp ba ba a euh, yokk suñu jëf kon ñoom daal li ñu mën mooy di leen jaajëfal di roy seen jëf jooju xam ne wax dëgg yàlla daara ji pas-pas bu ñu taxawee rek ñoom taxawañ bu toll foofu te ñu ngi leen di sant bu baax a baax nag muy mboolem daara yëpp ak fu ñu fi mën ne muy waa Argentine di waa Brésil di waa Côte d'Ivoire di waa Guinée équatoriale waa Mali waa Gabon waa itali waa Espagne waa France ba ca Canada fu fi membre nekk rek ba nga si ziar bi ba léegi gaa ngi dajale sa at addiye di ko yónnee di soñee fu gaa yi toll lan moo ci des ngir rek suñ Tuubaa defal ñu ci ndam Euh, jërëjëf Serigne Dame Diouk kon mbokk yi ba léegi ñu wëyal liggéey bi ñu ngi toog ak euh, Serigne Moussa Mbaw moom mooy euh, responsable finance centrale ca diwaanu Ndakaaru bokk aussi ci ñi nga xam ni ñoo doon saytu wàllu koppar yi ci mboolem daar istorxi daar Xudus sëñ bi ginnaaw bu ma leen nuyoo siyaar la ndokkee la tey ci am solo bi ñu bëggoon rek ay leeral ci fan ngeen toll tey jii ci wàllum addiye yi ak it siyaar boobaak léegi naka ngeen doon coordonné taalibe yi kon asalaamaaleykum ñu ngi siyaar mbokki taalibe yëpp xanaa di sant sañ Tuubaa rek ziar bi moom wax dëgg yàlla euh, tawféex na ku ne xam na ni bi ko jàppee ak léegi yàggul waaye nag mën naa ni pëste feeñ na ci ndax daanaka le 7 bi passé lañ confirmé date bi la 20 mai waaye diggante bi wax dëgg yàlla mbokki taal bi yëpp def nañ ci pësteef ko ci nekk rek la nga xam ne am nga ko indi nga ko def ko ci liggéey bi muy loo xam si wax dëgg yàlla am na solo lool xanaa kay ñu gën a takkaat laxasaay gën a songal liggéey bi rek te xam ni liggéey bi moom day dox du taxaw lépp lu ñëw rek nañ ko teg ne jàppante ko song beneen objectif. ah di sant ñëpp rek di rafetlu lu baax a baax baax tamit liggéey bi euh, bitim réew tamit wax dëgg yàlla kenn mënu leen ci wax dëgg yàlla France ak Italie Espagne États-Unis Canada ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ku ci nekk envoyé na sa addiya wax dëgg yàlla fatawarkàlla même cellules yi Thiadiaye Kébémer ñëpp rek ku ci nekk matal nga sa assignation sant sëñ Tuubaa baax baax wax dëgg yàlla ci côté boobu salaamaaleykum yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam noo ngi ziyaare sëñ Cheikh Sidi Maxtaar di ko ñaanal sun borom saxal ko fi mu yàgg fi lool di jaaxi Seydina Muhammad salallaahu alayhi wa sallam ziyaar bi at mu jot danan boole lanu am ak lanu amut yépp ngir jëmmal bés bi def ko ci bës bi jox ko sëriñ bi te yàlla rek tax ngir dooleel euh, jëmmal sëñ bi dooleel ko te yàlla rekk tax ñuy kontaan trop ci ziaru Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos bi nga xam ne ñu ngi koy def di nga koy def di ko ziare sëñ Sidi Moxtaar at mu jot saa su ne ñu koy def suñu borom di ñu defal taw feex ñu ngi ciy kontaan bu baax di ci wax ne euh, comme soxna Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos tamit ñu ngi leen ci sant bu baax a baax taxaw nañ ñu baax ci waañ bi ak togg yeeg yëpp xéewale ñu ñëw fas yéene ziar sëñ Sidi Moxtaar. ziar bi moom ziaru cant la rek comme ziaru cant la moom dañuy wan nii moom lum ñu sas rek sasoon nañ ñu sa tegoo ñu ngi sant nag waa Hizbut-Tarqiyyah Daara Khoudoss ndax lu ñu def rek jiitu nañ ci topp ñu ñu topp seen ginnaaw ko ñu leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér boo xam sëñ moo si jiitu lum ñu digal ñu def lum ñu ñu ngi ñaan nag suñu jëwriñ ji yàlla na ko fi yàlla yàggal. di sant Serigne xam ne moo ñu boole ci boppam di sant Serigne yi nga xam ne ñëpp dajee nañ tey fii ci ziar bi di ñëw sañ ziar di Sidi Mokhtar mu doon loo xamante ne di mbégte la ci ñun ñu di ci sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla lépp mu doon loo xamante tere waxtasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu moom rek la leen nit ñi ñaanal sa léegi ñu wéyal liggéey bu am solo bi nga xam ne suba léegi ñu ngi ci ànd ak nga koy def tey ci kanamu Cheikh Sidi Mokhtar euh, euh, moom mi ngi bokk ci jëwriñu Cuisine bi fii ci euh, daara ji te ku wax Cuisine wax ay bernde yu am solo yoo xam ne nii saa yu nekk rawatina moo xam ci siyaar yeeg màggal yeeg gàmm yi daara ji mi ngi ko baaxu ànd ak mbokki taalib yi nga xam ne ni ñooy ànd ak moom liggéey bi sëñ bi ginnaaw bu mu la nuyoo siyaar la ndokkeel également ci bis a baax ci liggéey rawatina ci wàllu waañ beeg yooyu waaw ab de moom siyaar da ko war te dañoo ñëwoon ngir si di siyaar sëñ bi ndax ah, daara ji moom ku ne xam ne dañoo baaxoo si saxbaan fan yi mujj saxbaan ñu siyaare sëñ fi nekkal sëñ Tuubaa daara ji moom sosoo ba léegi mën nañ ne quatre-vingt-dix ba léegi at bu jot dañ koy def bi si mujj saxbaan bu jotee dañuy ñëw siyaare sëñ bi ci lañ ci lañ nekk ni siyaar bi nag ku ne xam ne ne am murid fu ñu dajee xéwal li mënu see ñàkk moo tax ci lañ def ay ndax comme daara dañoo baaxoo weer bu jot ñu yóbbul ndab sëñ bi waaw waaye ziar bi saxbaan nag mooy mooy ziar bi gën a mag dañuy togg ay berne yu yaatu jox ndongo yi ak gan yi fi fekk gis nañ ne at mu nekk daara ji dana ñëw fii ci kanamu Cheikh Sidi Moukhtar amal fi ab siyaar euh, ci wàllu togg beeg yooyu ndax man nañ ci euh, jàpp ak yokkute par rapport ak année yi jàll moom ku ne xam ne moom yoon moom moom saa su ne rek day yokkute da ci am moom ndax ku ne xam ne ba ñu tàmbali ba ñu tàmbali ziar jamono Sëñ Saal dañ daan indi addiya ndaaw ñu ne ay napp waaye bañ tàmbali indi napp sëñ loolu lépp bokk na ci mandarga ak ndox ak dox bokk na ci mandarga dox ci lañ saa su ne dañuy yóbbu ndab. diiru at mi weer wu ne dañu toog ay ndab ñëpp daje fi ñu ñu jëbal ko sëñ bi daar yëpp koy barkewul nag muy daara bitim réew ak daara bitim réew mi. kon ñi nga xam ne siyaar bi ñu ngi ñaan suñu borom yokk si daara ji yokk si ndamal murid yëpp si bàkk Seexul Xadiim taxaw ak euh, Serigne Cheikhouna Sylla moom bokk ci jëwriñu daar hizbut daa ko bés bu nekk fii ci Touba en même temps mu nekk responsable culturel euh, Serigne Cheikhouna ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaar la euh, di la ndokkeel bu baax a baax ci bis bu am solo bi ñu nekk tey ñu bëggoon rek nga dikk ak ñun ci njariñ li nga xam ne nii tey ji siyaar bi ñuy def am na ko ak it rawatina addiya ban njariñ lay amal taalib bi nga xam ne tey mi ngi koy joxub sëriñam di rafet lu baax a baax liggéey bi xam naa ngir tontu ci laaj boobu dañ ci sawar lool ndax ku ne xam na ne siyaar moom dara ya bi xam ne am na ko ci yoonu murit ah, da loo xam ne ku nekk dégg na ko muy mbir yu baree bari yoo xam ne ay njariñ yoo xam ne yu la nit ku nekk di ko bàyyi xel ndax it doon tàmbali rek dañu xam ne siyaar moom ci yoonu murit daa doon kenn yi nga xam ne ñoo fondé yoon yi di principe fondamentaux yi xam ne ñoom ñooy fondé yoon ndax euh, ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moom mooy fonde yoon wi daa bokkoon ci yi nga xam ne moom la nekkoon ak mag ñim fi nekkaloon te tàmbalee ko ci jëm boppam ji doon ziar bu baax a baax moom digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi doon te jamonoontewul am na ay bind yoo xam ne bind na ne wax na yitteem yëpp moo jógoon doon na kon jug ziar ko waaye buñ ko indee ci yoonu murid di ziar dañuy day baax ñu xam ne bokk na ci ay njariñam bokk na ay njariñam mooy dana yóbbu murid bi ci ay waaj ay maqaama yu kawe kawe kawe ndax yi nga xam ne moom moo làmb ziar bu ñu ko tasoon di di détaillé baat bi da cee bokk addiya muy yaa ngi koy laaj ci biir joxe addiya ndax joxe addiya nag ndax melokaanu murit bi di ko sëñ Tuubaa di tënk ci gi nga xam ne murit bi bu bu làmboo loolee dana texe ba mujj mooy addiya waaye tamit mën nañ ne moo mujj ca mbind ma waaye moo njëkk itam ca jëf-jëf ndax day lu foor lool bokk ci li nga xam ne murit bu nekk da koy bokk ci ay yëngoo muy addiya da cee bokk yëngu murit addiyet yi xus di bilaa gi Sëriñ Tuubaa di wax te jëmee ko ci soxna Mariama loolu mooy wëlbatikuwaat indiwaat ci murid bu nekk ñu mën cee jël xissa bu ndaw boo xam ne diggante siyaar boo xam ne sëñ Manoune Moustapha yëkkati woon na addiya indi ko Sëriñ Tuubaa ñaar muy doon ko siyaar si ànd ak di ko jox addiya ndax ñoom ñaar ñooy ànd la ko Sëriñ wax doon sëkk ndax am na yu bëree bëri yu mu ko wax ne ko siyaar da koy def ci am murid addiya da koy def ci am yu mel nii di siyaar di leeral dañu xam ne kon addiya mooy li nga xam ne wàccuwaay wu mat a mat a xam ne am na ko xanaa ñu xam ne rek tënk ko suñu tuwaa daa waxoon ne di ko suñu mën a siyaaree addiya dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara dana fekk fu lu néew nekk mu baril ko waaye dana fekk fu lu baree bari nekk mu bargel ko kon wàccuwaay wu am solo la am ci yoon wi te tuuba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat la suñu tuwaa wax kon daal lii mooy li nga xam ne incha allahu taala façon nañ ko yéenee rek ne melokaan wi ñu koy defee melokaan wi ñu koy defee daa baax lool lool lool lool lool dëppoo itam ak melokaan yi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa bëggoon mooy nii ñu koy defee muy bàyyi ko ci ay béréb yi fasanti ko ne xam na ne mbooloo mi fi daje fu nekk la waay bàyyi ko yëkkati lam am ci ñàqam dajale ko xool la gën ca la nga xam ne moom la am mboole ko mu doon ab lim bu takku ñu ñëw nag mobilisé wu ànd doon mbooloo fas yéene sukk ci kii nga xam ne moom moo fi nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di Cheikh Sidi Moustapha ñu di ko ñaanal lool mu yàgg fi te wér kooku yi lañ ñëw andil ko addee ju mel noonu kon nag lii buñ ko doon buñ ko doon wax di ko tënk lañ naan mooy li tax mbooloo mi jóg ñu ngi rafet lu baax jëf ji di ñaan suñ borom nangul ñu ko itam di ñaan suñ borom dugalal ñu ko ca wax ji suñ tuwaa daan wax naan inna alladina ila sarsaara qad xasado ziarati faaraqu daarin aw saara yàlla na ko sëñ Tuubaa dugal ziar bi ci ziar yooyu mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ñu ngi taxaw ak euh, Serigne Makhtar Thiam euh, bokk ci jëwri ni daara ji sëñ bi ginnaaw mu la nuyoo siyaar la ndokkeel la tey ci bis bu am solo bi nga xam ni daara ji ñu ngi koy amal ci kanamu Cheikh Sidi Mokhtar muy siyaar annuel bi euh, ñu bëggoon rek nga andil ñu ak patli ci daara ji cosaanam naka jekk mu baaxoo di siyaar xalif bi ba ay ati at mu yàgg ko def lan nga ci mën a fàttali bismillahi rahmaani bari sëñ Touba Xaadim Rasuul suñu yaakaar kon sëñ Fallou Sylla yaak ñi nga àndal ñoo leen di sant bu baax ci liggéey bu rafet bii ngeen di def nga xam ne day jotal liggéey bii ñuy def di ko yaatal ba ñu baree bari ñi ko waroon a yëg man koo yëg ñi ci war a tàbbi it man cee tàbbi ginnaaw bi ñu rafetloo loolu ak laaj yi ngeen xam ne moom ngeen andi liñ ci gën a mën a wax rek mooy daara ji naka jekk ni yoonu murit di doxee rek daa tënku ci biir doxalin woowu mag ñi nga xam ne dañ daan sàkku ngërëmal sëñ bi yoon yan daan jaar di ci sàkku ngërëm bi sëñ bi leen ko defal yoon woow rek bi ñëwee ci lañ tege li cëp ci njàngale mi nag ñu ngi ko ree ci waxtaan yi nga xam ne sëñ bi daan na ko wax ak yoon wi nga xam ne daan nañu ca teg ba tax na ba li nga xam ne muy ziar ku ne xam ne daa bokk ci liggéey bi nga xam ne murid nañ ko liggéeyal sëñ bi biir ziar boobu nag bari na yu muy làmbo yoo xam ne gis sab sëriñ boo xam ne mooy ki nga gën a sopp ci àdduna di ko teg bët la ca juddoo ci njariñ it ku ne xam ne li mu doon rawatina nag nii nga xam ne noonu la sëñ bi mel ci biir ñin war a siyaare noonu mu leen kowee kon yool bi nga xam ne moom lañ am ci gis giñ koy gis noonu lay kowee leneen li ci teguwaat muy addiya ji nga xam ne dafa bokk ba tey ci fondement yoonu murit addiya dañ ko ciy dajale bu baax a baax di ko yót sëñ bi addiya jooju tamit nag li ci sëñ bi dële ku ne xam na nim toll ak li nga xam ne moom la mën a defar ci ab murit kon yeneen liggéeyal sëñ biit da cee ànd nga xam ne mbooleem melokaanu murit saadix dañ koy lëm ci ziar bi nga xam ne bii moom lañ koy def nga xam ne duñ ci boole benn duñ ci bàyyi benn fànn ginnaaw loolu nag tàmm nañ ko ba saa yin ko yëgalee képp koo xam ne ci daara ji nga nekk da nga ciy am cawarte goo xam ne moom nga ciy àndal ñu ciy soññante suñu biir di ci fàttalikoonte mag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy bàyyi ci yoon wi ni nga xamante ne ñooñu saaba yi ñoo nekkoon seen bàyyi ci lislaam soññante boobu nag dina tax ba kenn ku ne di nga def loo xam ne lii dina la wóor ne lii mënuloo ko woon ndax yëg-yëg moo la ci yón yóbbu ak pas-pas ak yitte ba moo tax soñña bi moom du mën a ñàkk ak yaatal giñ koy yaatal ñëpp di ko yëg nga xam ne dañu ciy tolloo saa yu nekk toll ginnaaw loolu nag seet nañu sëñ bi ndimbal lum ñu ci defal ak gàttandoom ndax li nga xam ne moom la ñu nisar saa yu ne moom lañu bëgg a yot sëñ bi dina jàppandi te kenn du ci sonn kenn du ci yëg benn coono te dina jàppandee ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee ginnaaw loolu it mbooleem niñ koy defee ci daara ju ne day mel loo xam ne day def tâche d'huile ci mbooleem daara yëpp ñoo bokk nuñ koy waajee ñoo bokk euh, niñ ciy waxtaanee ñoo bokk nuñ koy dajalee ñoo bokkit benn barab boo xam ne ci lañ koy centraliser daal di koy ñëw bokk ànd jébal ko sëñ bi. dinañ fexe it ba ñi nga xam ne ñoo fi nekk niñ bëggee sëñ bi ci boppam ñu ñëwee ci moom ñu koy leeralal ñu koy leerlu ba bu ñuy ñëw sëñ bi dañuy fexe ba ñëwee ni nga xam ne noonu la ko bëggee yar ak i teggin ku ne xamee na ko mbooloo mi loolu dañ koy gën di dëgëral di ci gën di yeddante di ci gën di waxante lu mbooloo mi bari bari dinañ fexe ba dinañ siyaare ci jàmm delluwaat ci jàmm te duñ fi ànd benn bruit boo xam ne bii dina doon loo xam ne du gënal sëriñ bi mbaa du gënal mbokk taale bi nga xam ne moom lañ fiy dajeel di leen sant bu baax di leen gërëm tey sant jëwrin yi nga xam ne ñooñu ñu jiite nag ci liggéey bi seen taxawaay rafet na seen soñña matale na te lépp ñoo ci jiitu jërëjëf wasalaam